indi mooy euh, daf xëccoo bi am ci nombre de parrains yi ma joxe nombre de parrains ma joxewul candidats yi li ñuy poussé euh, seen i militants ñuy def concours ci nombre de parrains ñi def risque bi ma ci gis mooy risque mu am li ñuy wax les doublons internes maanaam ci liste candidat bi benn parrain bi nekk ci luy bari li risque boobu mooy parrain boobu du lu ñuy wax du plan interne kenn du ko dabu kenn du ko rectifier kenn du ko régulariser. mais du plan interne moom ñu daanu ñu bëri ci parenage moo leen ko yóbbee ca 2019 kon jàpp naa ne compétition boobu ñuy def ci seen i biir diw indi na temps de parrain diw mais nit ki buy candidat jàpp naa ne warul ginnaaw lim biñ ko sas ci parrain mën na ut lu mat peut dix mille parrains teg ko comme réserve dafa doy.